Euh, ñu ngi euh, nuyu mboolem ñu ñuy seetaan ci senegal gi ak bitim réew euh, tey nag daje mi li ko waral mooy dañ fee daje woon ci turu association ànd sàmm jikko yi fii ci Daara waaye ñu def ci turu département bu Linguère ndax yàlla fa dogal ñu ñoo ne coordinateur bi ndaje mi nag li ko waral lenn la mooy li ñëpp xam mooy ñaari aspect ba ci njëkk mooy ñaawlu li xew Palestine ci noot bi ñu noot julli foofu. te kuréel yi àq yelleef doomu aadama nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp gisuñ taxawaay ba ci war a am ci ba ci réew arab yi nga xam sax ay julli la ñu doon ko naqaru di wane na ñu ak ñoom ñoo bokk miti doonte ay julli lañ sori nan waaye nag fi nekk ñoo ñoom ñoo bokk miti bi beneen bi ci teg nag mooy lii mooy mbiram góor jigéen mii nga xam ne gis na ne asandaala bu nasu suñu jël di ko lawal ci réew yi adduna bi yëpp bool ci suñu réew mi di Sénégal boo xam ñu ngi deux mille vingt six pour daganal fi ni mbirum góor jigéen loolu ñu ne comme ñun ay sénégalais lan même bu du sax julli gën doon mais am nan ay aada am nan ay jomb-jomb am nan ay bañ-bañ am yi gëm-gëm ñu daje woon fi nag wane suñu naqar ci loolu tey sàkku ñaar nda ko état bi defal ñu ko mooy bu ci njëkk mooy procédure bii ñu jël di ko doxal ñu arrêté ko immédiatement bu mu àgg parce que dëppagul suñu diine bëgg suñu ngëm gëm bëgg suñu aada ñaare bi ci tege moo ñu sàkku ci mu am loi boo xam dañ koy criminaliser maanaam ñu fexe ba ngóor jigéen képp kun xam ne mi ngi ceew ak foo mën a nekk yoon teg loxo tej la ci kaso bi wala boo ko bëggee def nga génn suñu réew mi dem ca beneen réew waaye réew mi Sénégal gi loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg lépp lu laa ci xeex na dañ ko def lii commencement bi nag la ñuy wax yéen euh, téeñ la rek yéen bi ñëwagut waaye mbirum góor jigéen ci Sénégal ak ñu ñuy dund du mën a nekk incha allahu taala lii daal moo daal moo warloon ndaje mi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu la procédure bi ngay wax àq ak yelleef bi ñu bëgg ne góor jigéen da ko war a mën a am mooy ñu may ko mu sañ a def ay ndajeem sañ a takkante sañ def ay soiréem sañ a euh, génn ci mbedd yi manifester woote ay réunion nga xam ne comme ni nga nin mayee euh, jullit bi wala chrétien bi wala ku mën a doon ci àq yelleef say aada nga wane ko ni nga ko bëggee ak organiser say ndaje loolu lañ bëgg ci réew bi ak leneen li nga xam ne ko ca nas mooy defar sénégalais boo xam ne day gëm ne góor nit mën naa dund ci famille boo xam ne du góor du jigéen mooy asanda bu ñu dugal na nañ koy dugal ci éducation sexuelle bi nga xam ne xale bi am juróomi at ba fukki at ak juróom-ñett nga xam ne fii ak at yëpp ñu koy liggéey nga xam ne boo màggee da ngay daan bu na famille rek nga ne ah famille de mën naa nekk góor mën naa nekk ñaari góor mën naa nekk ñaari jigéen loolu ci biir asanda bi la bokk bokk ci li ñuy xeex na boo mu fi jàllee ak yeneen yoo xam ne ay nóot yi la loolu daal la xeex te kon naqar lu moo tax ñu daje. nan ngeen na ma def. def mooy lii rek mooy premier pas bi. moo xam ne nii mbiram Euh, euh, réew mi yëpp la ñun département bi rek la ñu dénk muy euh, coordinateur département bi sañu ñoo def benn baat discours bi ñuy yëkkati buñ ci paree suñ mémorandum la ñuy jël dem yóbbale ko préfet ñu ngi mémorandum bi bu demee yóbbul ko préfet incha allahu taala mu jotali ko gouverneur gouverneur jotali ko ministre de l'intérieur xëy na comme amuñ premier ministre na dem ci président liñ ci teg mooy pétition bi ñu def ñu jël ko yóbbu ko assemblée nationale ñu projet ñu ñu posé ñu loi boo xam ne criminalisé góor jigéen pour l'instant daal ci lu doon toll Euh, incha allahu taala. mais pétition boobu a ngi constaté mi ngi avance mi ngi avance mi ngi avance parce rek ay 2000 war nañu koo a am. parce que 2000 dem na te li ñuy li ñuy li ñuy bind ci diggante bi ak loola boobaak léegi moo ëpp doole fuuf kon nit ñi sensibilisation moo desoon mais pour l'instant ni ak média bi ak jàpp gi ci gars yi jàpp ak whatsapp yeeg yooyu tax na ba léegi nit ñi ñu ngi intéressé wu am na ñu nekk fu sori sax. di di bindu ndax dañoo ne pétition en ligne nga xam ne da ngay foo nekk mën nga bindu rek euh, mu dem fële au niveau de euh, national ñu euh, enregistré ko mu dem ci document bi ñu yóbbu ci Assemblée nationale. jërë ngeen jëf ñu waa